lii nag du guléet ci xale bi ndax ci at mii tamit amoon na ndam lu rëy ca Malaisie foofa ñeenteelu place la fa jëloon. Maymuna Lo nag mi ngi bàyyeekoo ci daara Aïcha Umul Muminina nekk ci Yoff. daara ji képp ku ko xam démb fi mu jaaroon ba fi mu yegg si tey bu amee lii du la bett ndax boroom soxlawul dara si àddunaam jaay na dundam yëpp jëndee ko alquran kon bis bu amee lii du bett kenn ndax ku xam démb fekkee tey lii du la bett danga naan lii du chance mérite la. daara ji moom def ci fier lool wax dëgg yàlla am ci yëg-yëg bu mag tam waaye di ko sante suñ borom subhanahu wa taala nga xam ne moom la. waaye di ko sante suñu yaay Xaja Binta Thiaw nga xam ne moom lépp moom la. ndam li mu am nii nag yëkkati na bu baax raaya réew mi moo tax ñëpp rafetlu nañu ko. soxna Maimouna doo génn jël deuxième ci concours international dañ naan fierté la si ñun fierté la si Sénégal fierté la tey ci Afrique ba tax looloo waroon tey li ngeen gisoon ñu déplacé wu dem aéroport accueillir accueillir ko ñun famille bi ñu ñëwee noonu moom moo ko waral te loolu xeeb nañ ko wax dëgg yàlla. si man la yàlla jaarale mokkalam sama classe la nekkoon ba mokkal. lii tey ndax bi mu tollé si jang, xalé bi moment bi nga xamantene ci si jang di def ay tapalé wala di tari di ay def tapalé yoy ay baral yoy mom musu bok ci programme bañ nañ ko ba yenn xalé yi nga xam dañuy bëgg lu yom ku ko si mus di teyel bu koy wax ay baral nak yoy da kay jaral mu tok di jooy mom mënul lool vraiment jambar la won ku yaru la ku tey la ku am diine aussi wax deug yalla ku déggal ay magam la déggal ay waajuram la. temps bi fi nek yépp mënuma fàttaliku benn yoon comme ni ñuy toogee di fàttaliku ci ndongo daara yi niñ fi jaare woon ci loo xam ne defoon na ko ci lu ñaaw wala loo xam ne lu safaanu digg yàlla baax ak rafet jikko lañ xamoon ci moom ak jàmbaar lool ci alxuraan bi nga xam ne moom la doon jàng ak bëgg ko. moo may jàngal sax. mais xam naa ne daal ku mën a jàng la macha allah fas yéene naa nag mel ni moom dañoo kontaan ba xamuñu sax lan la ñuy wax. waaw di ko ñaanal rek di ko ñaanal rek yàlla musal ko ci seytaane defal ko ndam li ci kanamam dàq li nekk ci ginnaawam. ndam lu rëy li nag moo tax autorité yi nga xam ne ñoo ngànk njàng mi. ak ñi yëngu ci njàngaleem alxuraan ak ñëpp ñi nga xam ne dañoo sopp alxuraan sargal nañ ko sargal bu rëy li nu ci jublu rek mooy fexe ba xale yi roy ci soxna loo mii ولئن كفرتم إن